asalaamaaleykum ami internetu SA TV euh, tey nag euh, dañuy ñëw ak yéen rek euh, ngir fas yéene xuus ci ëttu Ndakaaru yi ngir gisanteek Euh, askan wi euh, ngir waxtaan ak ñoom ci lu ñeel wàllum passeport euh, diplomatique yi nga xam ne tey nguuru Macky Sall doon nañ ko jox ay yenn ci ay ministre ak ay député tey nag mu mel ni président Bassirou Diomaye Faye nag dafa nangu yooyu les passeports diplomatiques ñu daal di ànd ak yéen rek tuuti rek ñu xool naka la askan wi gisee lu ni mel. ci passeport diplomatique yi c'est très normal ñu war kaa récupérer parce que man sama gis-gis pour man loolu alal askan wi la ñun ñoo leen ko jox. ñoo leen jox matériel boo xam ne pour ñu mun a déplacer c'est des moyens de déplacement pour ñu mun a dem liggéey pour ñun Sénégal mais ils ne sont plus la n'est-ce pas donc nit boo demee man si sama xam-xam gu gàtt soo demee ba liggéeyatoo nguur gi liñ la joxoon lépp comme matériel pour nga liggéeyal nguur gi boo demee ba amatoo boo ba liggéeyatoo nguur gi danga nga kaa war a delloo nguur gi si njëkk comme Macky Sall nu mu ko waxee woon booy man faruma fenn mais. ci dëgg laay topp dañ kaa war a nangu c'est parce que suñu alal la bu ñu leen ko bàyyee ñoom dañuy demee ci suñu tur euh, dëkk ci suñ tur dëkk la ñuy demee di tukki munoo dem ci suñ dëkk di tukkee ci suñ tur dëkk alors que diplôme kii ni ñu koy xate euh, passeport bi ngay demee passeport diplomatique état moo ko moom état c'est pour ñun suñu xaalis la ñun ñii boo fayee ko ñu daggal la impôt moom la ñuy jël di leen ko di investir si ñoom oto yi privilège yi ñu amoon yëpp war nañ ko mën a nangu ñoom ils ne sont plus dans l' état boo servir les état munoo munoo jël matériel état di ko kii di ko utiliser est ce que le citoyen lambda mu ngi bénéficier wu ci lool tel n'est pas le cas. non parce que nguur nguur Macky Sall gars yi liggéeyuñu quoi na nga wax te dee bilaa parce que ku ci nekk ku ne sa intérêt sa intérêt bopp moo la toogloo foofu si nguur bilaa da ngay xool comme ku si mel ni ay ñum fa. mu def pour intérêt Sénégal yëpp. parce que ñu nekkoon foofu ñu bari li ñu def si Sénégal dafa bari xaalis réew mi kenn du ko laal boo ko laalee lu ñu fay loolu nga war a jël mais bul jël lu ëpp bu ëppee kay moom moo tax Diomaye mu jàpp passeport diplomatique pour gars yi képp ku jël waaye moom jël na mu delloo xaalis bi président mu bàyyi ko mu dem yoonam loolu mooy Sénégal boo gisee Diomaye mu def fi pour Sénégal mu rafet rek ñun jeunesse yi sonn nañ sonn nañ trop. c'est bon maa ngi lay ziar yow tamit Ablaye laa tudd sant Samb comme ni ma dégg man exactement pour man initiative bu baax la parce que dans notre pays passeport diplomatique yi c'est réglementé mais dañoo xool ni ku jog ñu jox la passeport diplomatique te passeport diplomatique bi vraiment du n'importe kii lañ ko war a jox dañ ko war a jox ki nga xam ni fonction moo waral mu am carte d'identité boobu euh, passeport boobu mais on a trouvé dans ce pays loo xam ni nan laa la ko mën a waxee dafa jéggi dayoo tout est bouleversé dans ce pays là man damay xool dëkk bi ni muy doxee quelquefois je me demande même est-ce qu'il y des officiels dans ce pays ndax ñi nga xam ne ñooy officiels yi boo leen dégloo ñuy wax sax nga xam ne ñii duñu jëmale dëkk bi ci kanam man nag li ma ci gis mooy gars yi c'est une très bonne initiative li ñu def nangu passeport diplomatique ou ministre que def parce que des gens qui ne représentaient pas le Sénégal ils ci là pour eux-mêmes ils sont pas là pour le pays il font ils font rien pour le pays moi je trouve que vraiment initiative bu passeport diplomatique yi sax lu tuuti la par rapport à ce qui s'est passé dans ce pays là war nañu xool exactement dëkk bi nan la ko diriger c'est une direction bu nit ñu jël boo xam ni vraiment danoo yàq dëkk bi complètement sur des choses yoo xam ni kenn xamul fu mu tegu en toute honnêteté moi je trouve que ça c'est un pas ver vraiment loo xam ni war na romb lii yëpp du passeport diplomatique yi romb na sax passeport diplomatique lii c'est un petit pas par rapport à ce qui se passe dans ce pays et qu'on doit régler par A ou par B si on veut vraiment que Sénégal tey ci suba dafa am sama cousine mu ngi France nee ma laay noo gisee dëkk bi moi je suis arrivé avant-hier ma ne ko quand je suis arrivé à l'aéroport j'ai vu qu'il y un petit changement amatul colonel wala chef commissaire jàpp kii génne kii j'ai vu que les trucs marchaient très bien on n'a même pas fait trente minutes ñëpp génn j'ai senti que y a quelque chose qui se passe dans ce pays c'est quelque chose nag man pour man du dirigeant yi ah. c'est nous la population am na yoo xam ne war nga ko nangu am na yoo xam ne waroo ko nangu. loolu moom initiative bu baax la ci li ma gis quoi nangu bi mu ko nangu noonu loolu lu am njariñ la quoi parce que. am na loo xam ne nii moom boo koy def cim réew quoi comme Diomaye dafa ñëw pour liggéey quoi te lépp loolu yëpp ci développement réew mi la bokk quoi ci li ma jàpp man sama xalaat bu gàtt quoi parce que tamit du n'importe mënoo yor passeport diplomatique fu la neex dem fu la neex de te comme état boobu tamit jeex na beneen état moo ñëw du yoon quoi léegi comme état continuité la Diomaye loolu mooy initiative am loolu lu baax la lu ñu rafetlu la tamit. comme ci ñeneen ci gouvernement bi lañ ko jox néewatuñ ko duñ ko nangu ah man daal loolu laa gis. léegi ku bëgg passeport da koy dem wuti feneen mbaa nga jël fexe am noo ko amee waaye wax dëgg yàlla ko ko warta am daal waroo ko am waaw. Ah, mi ngi noonu ami internet SA TV comme ni ngeen ko gisee rek lii lañ leen andiloon ci wàllum passeport diplomatique yi ah, dañ leen di jox dig daje rek ba ëllëg incha